très souvent saafara moom man dama koy bañ parce que ñun sociologue dañuy bañ saafara parce que saafara mooy loo xam ne ni xëy na boo ko jëlee rek danga ngaa war a wér médecin mun na ko wax psychiatre mun na ko wax keneen mun na ko wax mais pas saafara peut-être mais mun na nekk loo xam ne nii mun nañu may ñu jubbantiku ci suñuy rëq-rëq ak suñuy juum-juum bi nga xam ne def na léegi dañoo reer ndax jamono dafa dem ba lëj kenn xamatul foo jëm nit ñi ñu ngi bëgg lu ñu amul jafe-jafe yi aussi tar na si nit parce que nit ku nekk xam na ni nit dafa fonk bakkanam te bakkan li koy yore li ci ëpp. mooy xaalis ak am-am soo demee ba amoo ko mun na la réeral wala mu may la jiixi jaaxa boo xam ni xëy na di def lépp loo xam ni mën nga ko pour mën a euh, xëy na kiir laayal sa njaboot wala nga suturaalal leen mais soufisme daf lay wan ne lépp loo am te munoo ko am ci dëgg munoo ko am ci yiw munoo ko am ci ngor munoo ko am ci jom munoo ko am ci lu rafet ak lu sell booy boo nga bàyyi ko fa ñi nga fi gis ñëpp ñu leen di woowee ay sufi dëkkuñu ci ay R plus 4 dëkkuñu ci ay château dëkkuñu fenn ci ay mbir yu simple lañ dëkk te pourtant en réalité ñi am château ak ay 4 x ñoom ñoo daw wut si lem donc en réalité la véritable richesse soufisme daf lay wan ni nekkul ci xalal alal nekkul ci xaalis ci xol la nekk ak ci ruux xëy na bu fekkee ni nii ñu ngi euh, jël jàngatu mag ñooñu nga xam ne ñoom ñooñu wanoon yoon bi alors di ci taataan mun nañu permettre réer bu ñu munoon réer mu wàññeeku ci lu ëpp ba xam ni askan wi fi mu jëm fan yi ci rey ci sàcc ci jàmm ci def na ko sudul noonu ci jël alal ju lewul xëy na yàlla mun nañ ci musal parce que dañuy xam ni en réalité lépp li mujj te nga xam ne moom moo sax du dund bi ñuy dund fii dund bi ñuy dund fële la te loolu lañu mag ñu baax ñi nga xam ne ay suufi yëpp wan fii ci Sénégal. Euh, euh, bi yëpp dañ ko ban euh, relation wala ban liaison lañ mën euh, mais véritablement kenn mënul wax soufisme génne ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que soufisme dafa nekk yoon boo xam ne ci yonent bi la lay jëme yonent boobu ci ci la suuf yi yaakaar la amu ci ay mbagam mu yóbbu leen ci yàlla yonent yàlla boobu nag li ñu fi wax yëpp ci wàkkeerlu ci muñ ci doylu ci loo am ci dellu ak sa conscience ci ay jamono yu bëri ci biir alxuraan wane na ni moom nekkoon na ci ay jafe-jafe mais il n'a pas choisi les armes n'a pas euh, ay méthodes yoo xam ni c'est des méthodes simplistes pour sàcc ci wala mu euh, xaddi wala mu daw dem nañ ba nattu ko ci sax nattu yoo xam ni su ko neexoon mu weddi mais musul weddi ci buum gi mu jàpp fala jàpp te léegi yàlla wane na ko diine bi gën a mag ci jamono moom mooy diine Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy l'islam alors donc nag su ñuy waajal gàmmu di waajal bésu kooku nga xam ne nii lu ñu bind moo tax ñuy wax ci waxu soufisme ak valeur pour man Euh, le rapport est strictement direct mënuñu woon a wax soufisme ba pare di ko waxee ci contexte su je sais pas moi di ko wax ci contexte su yeneen fête yoo xam ne nii amul rien à voir avec feetu yonent bi guddi gi ak weer wi ñu nekk nii lu ci am ci kaw suuf lii moo ci gën. suñuy wax ci li gën ci suñu askan moo tax euh, waa kër euh, njabootu Seydi Hadj Baro jàpp nañ ci période bi lañ ko waroon defee mu ci période boo xam ni euh, qui vient à son heure. a suivre les traces de ces suuf ne Sénégal dëkk diine mais malheureusement ñu gis ne jëfin yu bare dafa saxantuwaat ak lii. waaw gàll gàllankoor bi ci bi ci bi ci gën a rëy nag dama jàpp ni mooy nit ñi dañu yaakaar ni nekk ci yoonu tarixa ci dem màggal la ak gàmmu. alors que nekk ci yoonu tarixam mi ngi commencé ki ci nga jàng enseignement wu yoon wi te enseignement yoon bi nag moom moo lay jëm ci soufisme mooy bëri na ay taalibe ci bokk naa fenn identité mais bëriwul ay taalibe ci xam naa njàngatug njaboot gi ma bokk loolu su sooxee da nga fa nekk mais nekk nga fa nii rek ci jëmm mais ci toppandoo la responsabilité première incombe ah ki nga xam ni nii moom jàpp na ni taalibe la war na mën a xam ci lu muy dugg lan la du ma ko mos a mukk teg sëriñ yi parce que sëriñ boo dugg ci ëttam fekk fa daara boo xam ne day jàngale mais nit ñi duñ fa ñëw heure daara heure célébration lañ fay ñëw. heure est-ce que sëriñ bi du la natt aussi xool sa degré fi nga toll aussi mu boole la am xam-xam pour teg si yoon bi. waaw mais sëriñ sëriñ bi lay bi lay nattu mooy ki lay gis sëriñ bi lay nattu mooy ki lay gis les gens ils un rapport plus ou moins mercantiliste avec les marabouts mooy su ma la soxlaa rek laay dem ci yow. pour parce que am naa benn liggéey bu ma bëgg wut am naa ay jafe-jafe ma ñëw ñaan la ndimbal mais doo fa dem ni am ci sama diine dafa am lu ci sooxee damaa bëgg tijjeeku ci yow pour nga mën ma wan yoon bi ma war a jaar te loolu aussi moom mooy véritablement le sens de tarix ak sëriñ sëriñ mooy ki nga xam ne nii boo demee ba yoon bi commencé réer am lu la jaaxal ci sa biir diine da ngay wàññeeku ci moom mu wan la ko mais sëriñ yi ñu ngi koy def talibé yi ñoo fa n'a pas en tant que sociologue. Écoutez, moi j'ai jamais cru à ce à ce concept-là. Qu'il me pardonne celui qui l'a initié, ce concept de national là, mais le Sénégal n'a pas besoin de Non, c'est un psychologue même. je veux pas le nommer mais qu'il me pardonne. Moi je partage pas son point de vue de national. Avant que le ndëpp puisse être national, il faudrait d'abord qu'il soit individuel. Ça le ndëpp que l'on fait à travers un penki mais ce sera un deuil qui sera voué à l'échec parce que les consciences individuelles ne seront jamais uniques. On n'a pas besoin de ça, on a besoin d'un redressement sociétal qui passe par le truchement de l'éducation issue et reçue à travers les familles. Et cette éducation-là doit se fonder sur des piliers extrêmement importants qu'on appelle le couple, le père et la mère. Donc je vous renvoie même à un questionnement par rapport au choix du couple. Qui est en tant que mari et qui devrais-je épouser en si on règle ça et que ce soit à la base des gens inspirés du soufisme des gens extrêmement lumineux et clairs fondamentalement le fruit et le produit que constituera l'enfant il sera un enfant modelé régulé très enclin à pouvoir porter les progrès du développement. Qu'en est-il de l'introspection collective? Hein? L'introspection, encore une fois, l'introspection ne peut pas être d'emblée collective. Comme son nom l'indique, c'est introspection. l'introspection doit être d'abord individuelle. Cette remise en question doit se situer à la dimension de l'individu qu'il fait en tant que tel. on ne pas l'amener au niveau des pintes ou voilà. Donc moi, j'en appelle de plus en plus à cette, cette introspection, mais surtout à une socialisation réussie. La socialisation, c'est ce qu'on appelle la préparation à l'entrée à la vue ultérieure. comment on prépare un enfant à devenir adulte. C'est ça le plus important. Et c'est ça presque à tous les échelons de la vie. On l'a raté au Sénégal. salaamaaleykum wa rahmatulah. fii sëñ fii li Ndiéguène Moustapha euh, ñu ngi kontaan bu baax ci jotaay bi di wax rek ne ñun waa Kër Alaaji Ahmad Baro Ndiéguène kilifa ki di mu niru Ndiéguène ci ndigalu baayam sëñ Baye Abdou Aziz Ndiéguène ak ki nga xam se mooy président comité d'organisation gàmmu gi mooy sëñ Ousseynou Ndiéguène ci lañ àndandoo pour taxawal bés bi nga xam si ne mooy comité scientifique pour l'organisation du Mawlud de Kër Maam El Hadj ren nag yàlla dafa dogal mooy cent trente et édition ndax suñ maam El Hadj Ahmad Boro 1885 ci la tàmbalee màggal guddik Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko def ba génn àdduna doomam bi ñuy wax Alaaji Mba Ndiéguène jël rël bi ba mu fi jógee ba léegi nag ay rakkam sëñ Xasan Ndiéguène sëñ Abdou Wahab Ndiéguène sëñ Baye Abdou Aziz Ndiéguène jël lépp jox ko sëñ Muniru Ndiéguène macha allah boobu ba léegi ñu ngi ci yàlla na fi yàgg njaboot gi yëpp ak ay rakkam ren nag li tax ñu ba dajee waxtaan bi mooy dañoo jël. Euh, thème booy xam bi nga xam mooy le soufisme comme réponse à l'effritement des valeurs sociétales et morales pour bëgg ci discuter ndaxte tey ñëpp xam nañ ni réew mi dafa yàqu te lu bari li ko yàq moo jikko yi te jikko yi li koy defar rek mooy ñu fexe ba ndaw ñi ñu dellu leen ci jàng dellu leen ci jàngatu mag ñi nga xam si loolu lañ fi bàyyi woon. mag ñi ay suufiyanke lañ woon moom la tubaab di wax soufisme arab di ko wax al mutawasuf ñun nag lu ñu bëgg mooy képp suñu njaboot ak njabootu dëkk bi ak njaboo njabootu réew mi ñëpp dellu ci jàngatu mag ñi mag ñi seen jàngat soriwul mooy yàlla ak yonent bi ak kilifa diine gu mën a nekk sa jëfin nit ñi mën di ci jàng jarul ngay wax mais boo jëfee rek ñoo xam ne kii nit ku baax la ñun nag Thiès suñu maam danaan wax na bu doon tàkk man damay toog ndaxte suñu maam Aji Ahmad Baro dafay yàgg sanc fi jàkk ji njëkk ci Thiès mu samp ko njëkk nekk premier imam bu dëkk bi bu ba léegi bàyyi fi njaboot nga mi macha allah lépp luñ mën a def ngir taxawal loolu nga xam si ne moom la fi bàyyi woon incha allah rabbi dinañ ko def di gërëm ñëpp ñi ci jàpp ñëpp. ci xew-xew bi ah, monsieur le maire Talla Sylla ak ñi nga xam ne si la yëpp mooy waa askan kër Alaaji Ahmad Baro porte parole beeg sëñ as sëñ Alaaji Ahmad Baro njegeen al imam ak ñëpp ñi nga xam ne si la seen njaboot lañ salaamaaleykum wa rahmatullah